asalaamaaleykum man la Daour Sène proviseur wu lycée euh, enseignement technique bu formation professionnelle de Thiès bi nga xam ni moo war a euh, jël turu monseigneur François Xavier Ndione euh, alxames lañ koy def premier ministre ci boppam moom mooy ñëw teewee cérémonie bi ci kanamu ministre enseignement technique ci kanamu évêque bu Thiès mais aussi ci kanamu ambassadeur. Euh, bu Luxembourg bi nga xam ni moo nekk Sénégal euh, lycée enseignement technique bu Thiès nag euh, Thiès dafa am sens nekk lycée professionnel bi njëkk bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu tabax ñu tabax ko fii si Thiès lycée professionnel mooy lycée boo xam ni day xool région bi lu mu soxla ci compétence ci bu en tout cas pour que soxali économie région bi Euh, maanaam euh, nan lañ mën a def ba xale yi am compétence yoo xam ne mooy tax ñu mën a liggéey ci biir région voilà moom lycée boobu loolu ci loolu lay liggéey moo tax sooy xool euh, filière yi ñuy jàngale fii ci lycée bi dafa méngoog atu Thiès maanaam Thiès fa la war a jaar pour se développer donc fii ñu ngi fiy jàngale agriculture ñu ngi fiy jàngale maintenance industrielle ñu ngi fiy jàngale froid ñu ngi fiy jàngale génie civil ñu fi fiy jàngale soudeur ñu ngi fiy jàngale mécanique moteur donc loolu yëpp dafa ànd ak économie Thiès ñooñu ñu leen di jàngal du leen jàngal rek théorie dañ leen di jàngal xariñ ba nga xam ne ñoom suñu génnee loo leen jox ñu mën ko liggéey donc loolu mooy lycée bu bees nga xam ni moom la ministère enseignement technique formation professionnelle bëgg a def ci Sénégal yëpp mais njëkkee ko Thiès euh, lycée bi nag c'est bi mu fi bi mu commencé loolu yàgg na ndax 2006 ba léegi ñu ngi ci liggéey bi. Euh, léegi nag la état bi jàpp ni euh, turu lycée bi euh, dañ ko war a jox turu monseigneur François Xavier Ndione ndax jàmbaar jooju li mu liggéey cees ñëpp teg nañ seen bët population yi teg nañ seen bët ndax nitu église la woon mais yemul woon rek ci église ndax dadoon liggéey ci éducation ku gis léegi école u Thiès kenn mënu ci génnee école catholique ndax vraiment ñii ci ñi def qualité lañ bokk te moom moo ko initié am na même benn centre de formation professionnelle boo xam ne moom moo ko créé muy Don Bosco donc ci éducation def na lu bëri ci santé aussi euh, euh, kii bi euh, hôpital bi ñuy wax Saint-Jean-de-Dieu moom ci boppam moo ko créé mutuel de santé yi au Sénégal c'est le premier bi njëkk am fii Thiès la moom moo ko créé woon léegi mutuel de santé yi wër na Sénégal yëpp léegi gouvernement bi sax moo ci def loxo kon kooku c'est un homme d'église nitu système éducatif la nitu santé suñ ko joxee tour bi ñun ñi dañ ci gisuñ bopp ndax euh, moom devise moo doon euh, ngëm ak liggéey mooy foi et travail te ñun loolu lañ bëgg def ci suñu xolu euh, étudiants yi nga xam ni ñoo fi jaar nañ gëm ñoom gëm lépp gëm seen bopp gëm seen culture gëm seen religion gëm seen dëkk mais aussi di liggéey voilà di liggéey gëm liggéey waaw donc loolu. loolu bi. na mhm. mu mhm. mhm. yànjewoon ci ba que jël ay matuwaay nag jotul. ngir wallaay ndax euh, euh, naan woo naa fi président conseil départemental woo naa fi maire de Thiès woo naa fi euh, le préfet ni leen lii jumtuwaay la boo xam ni gouvernement du Sénégal. moo ko jox cees mais dafa mel ni Thiès gisuñu jumtuwaay bi ndax jëriñëwuñ ko sax dañ ko teg fële rek mu nar a yàqu ndax euh, euh, jumtuwaay bi je pense que ku ko am war nga ko fonk war nga ko jëriñoo ndax ñun sax dañ ne ni euh, léegi lycée yi dañu war a am autonomie maanaam au lieu que ñuy def ay programmes yoo xam ni ministère bi moo ñu koy jox mais dañu war a dem ci conseil départemental dem ci chambre de commerce xool ñoom yenn compétence lañ soxla ñu former leen ay xale ñu utiliser ko tout suite pour le développement de la région donc c'est un outil de développement euh, jumtuwaay la pour développement donc ñi ñi ko wër nga xam ñoo nekk ci environnement bi xam seen responsabilité nekk muy conseil départemental muy maire yi ñoom ñoo waroon jël en charge mais fi mu nekk amul benn dërëm buy jógee conseil départemental di wàcc ci lycée bi amul benn dërëm buy jógee ci maire bi di wàcc ci lycée bi amul dara luy jógee ci autorité locale yi fii di ñëw ñun lu ñu lijjantul seen bopp wala jógewul ci état bi ak état bi nga xam ne chaque année ñu wàññi budget du dem donc il faut que autorités yi aussi jël seen responsabilité jël jumtuwaay yi nga xam ne état bi def na le grand investissement entretien maintenance la soxla ñoom ñu def seen liggéey mais ñooñu aussi dañoo tanewul gis nañ leen mais xam ne ñoom ils ont des difficultés financières donc mhm. mais wax naa la budget fonctionnement lycée bi état bi 38 la ñuy jox li si des yëpp ñoo koy lijjanti dina dem ba 150 millions. wallaay. mi ngi noonu. gis nañ tam fii li wër wuruñ bi. Mhm. war nañ ko defar parce que environnement boobu aussi dem nañ si sax ñun ba ci ut solution parce que dem nañ ba gis ni euh, population yi wër euh, lycée bi muy caal yi coona ay nit a fa nekk dañuy produire ay déchets. quelque soit alpha dañ produit déchets yooyu su dee camion ñëwu ko di ko jël di ko yóbbu ñoom bu ñu ko gàddee seen biir kër il ñu génne ko fii moo leen gën a jege parce que ay charretiers jooy ñëw di ko jël ñu leen di fay ñu koy yóbbu charrette mënul def distance bu gudd ay charrette mbaam mënul def distance bu gudd distance bu ndaw lay def tour fii yëpp gën a jege fii su tuuree comme ñun ñu ngi fii ci biir lycée bi ñoom suñ tuuree gisuñu kenn rek ñu tuur. yéen daal îlot îlot d'ordure some au centre dem nañ ba proposer ni leen léegi ñun ñun ñun mën nañu defar ay moto moto yu yu yu yuy jël mbalit mi avec avec wagonnette voilà ñu di moo xam ni quartier bu ne dañ fay def benn wagonnette bu ndaw moto bi day ñëw arrière jël wagon bi daw ba pax ya nekk fële wetu morola sotti ko ñëwaat parce que loolu moto mën na ko mais charrette et projet boobu suñu si maire bi toppoon kon fu ne def nañ fa ay wagon mu fii dañ koy defaree ci lycée bi moto rek la ñuy jënd wagon bi lépp mën nañ ko defar fi ab def nañ benn exemple boo xam ne yóbbu nañ ko ngaay mu ngay taxaw foofu parce que ndànd parce que am na ñu projet ku leen financé ñu ngi koy def mais mën nañ ko def fii aux alentours du lycée donc ñu ngi proposer solution mais on ne nous suit a laaj bu jeexlu lycée mhm. fekk si mbalit mi wala fekk si lycée. que avant euh, mbalit amu fa mais mbalit bi. bi camion bi ñëwatul parce que camion bi daan ñëw ba fii bi camion bi ñëwatul la mbalit mi commencé parce que camion bi ko daan jël si parce que moom moom moom moom moom moom dina am du arrêté te kenn du ko def sa biir kër kenn du ko def ci mbedd bi day sori. waaw sori na sori na sori na mais maintenant euh, euh, soriwaay bi euh, problème la parce que day tax. Euh, euh, ay élèves yoo xam ni am nañ xarañ bi jóge troisième mënoon ñëw fii jàng fii nekk ay potentiel pour dëkk bi duñ fi mën a ñëw ndax seen parent amuñu paas bu leen jox tous les jours donc ça euh, démocratique en tout cas l' accès au lycée et c' est pas normal normalement tous les Thiessois dañu waroon mën a am accès ci lycée bi su dee am nañ capacité yi nga xam moo leen permettre ñu ñëw fi mais malheureusement ak ni mu soree ak ni mu joxee ginnaaw dëkk bi. tax na am na ñoo xam ni waroon nañ fa mën a ñëw développer seen compétence njëriñ réew mi njëriñ Thiès mënuñu ko ndax seen parent amuñu te fii amul internat amul bourse hmm? amul demi pension amul dara waaw léegi ñun suñu pexe bopp lañ mujjut ñun dem naa Luxembourg mission daja fekk les sénégalais de Luxembourg ni leen Luxembourg defal na lu rëy cees mais am na handicap bu rëy ndax fa mu ne daa sori ndax lycée bi ni mu toll malheureusement fii rek la amoon place fu sori fii parce que looloo ko indi fii dimension bi mu toll léegi nag li ñu bëggoon yéen yéen a ngi fi euh, ngeen dajaloo am ñu leen jàppale euh, suñu mënee am ñetti bus yu mag hmm? euh, suñ ko tasee Thiès dina mën a indi les élèves surtout gratuitement waaw ñoo ñi ngi ci et d'ailleurs au mois de février dañu war a def seen dîner de gala boo xam ne dañu war a dajale tous les donateurs pour pouvoir réaliser le projet léegi nag ñu ngi bindaat beneen projet pour cantine quantin scolaire ñu ngi ci wow aussi tous les Thiessois ak képp ci lu mu mën a ne koo xam ni mën na intervenir pour que lycée bi mën a am cantine boo xam ni midi même suñuy jox xale yi euh, caakar yi wala mburoog ton hmm, ñu leen koy jox pour que cours après midi yi ñu mën ko suivre parce que am na ñu bëri ñuy toog ñëw la matin du ñu ndekki ñu dañuy woor ba ngoon ñu dem parce que am ñu lu ñu lekk amuñu ko seen parent amu parce que mun ñu fay transport di leen jox lu ñu lekk di di bàyyi dépense aussi kër